le dos tabarkalla mu waxtaan mais célibataire ay toj neen bëgg di farine ah daa ko jox suuf ay wéy allez allez déedéet te calme dama bàyyi fi booy yi dégg ma daw mag baa booy ñoo dégg ñaari bari yi mu war a wax message naa mu toog mu góorgóorlu mu góorgóorlu marié barke Sëriñ sa jabaat ba mu ñëwee nga toog nekk kilifa aj say tànk oh Aliou Sarr la rek nga ne udd la doon toog fii xool relax bi du dara man la sax mënatuma yàgg ak yow fenn non suñuy waxtaan moo mënul bokk non non ambiance laa man xam naa tey ah, ah? sëy yu bari fekkee naa ko ci réew yi xam naa sëy sëy naa ba tas <laughs> mais su sëy daf ma jaaxal yu si sëy da ci ànd ak nobaate metti sëy xale la wóor si xale bi leen ba xam nga ngeen baal la nag lii laa gis Ini kita milih lagi sedang kayak wah. Lu gak boleh lugis bentar. Tuh ya. Dengan debu. Eh. Samuel Argo. Mhm. Baax iya, eh, na ku yaru du. Ba pare ay xeetu kadoom. Ku ma déggal nag. Gëj itu kadang. xeetu kado yooyu. Jaw di ma déggal la. Nit ñi ay mbuus lañ daan joxe mbuus suñ bloqué. Man ay sase laa gis sase. Yow. Ay mbuus yu weex. Yow. Nag amiin li nga bëgg yaa xam yàlla suñu borom defal. amiin góor yàlla xam nañ ni nga mel ci ñëpp. Mhm. ñëpp nga uufandoo. te koo mës a uuf gis na avancement nga sa rawaane baax. waaw joxoo nit ñi ay milliards mais teg nga leen place milliards. bandi rek laa yooyu ci yow. <laughs> bandi loo bëgg li jënd ko loo bëggul. doo sa yoon yow. <laughs> loo def yaa ko tey lu la nit yónnee gis nga ko Alioune Ameth Diallo mu yónnee nee na. waxal Aline muy jël appel yi. mais mu ñëw añ tey oh. nee na jaaykatu xar doogu la. Oh. magam di woy mu war a woy naan day jaay xar. di ñëw nee yow boo ko woowoo du ñëw. Ahmed Diallo bee boo nga woo ko chaque jour mu tagg mu tagg leen ci poste ku naan bi waaw te sama follower yi nee yow rek la ñuy topp. l'homme social. dégg nga romb naa ko mi may daaj. léegi léegi mi sa tànk mi sa kaw. nekkee sama tànk nekk ci ay tànk magam. Sinaab bi kay moo. ah bi communiqué. ah waaw li ñu ko waxal. Kara na ñëw ndax ñu ñoo bokk nu bëgg rek. kuy xiixal waale. Sénégal nga xiixal ku xiixal Aline. Sénégal nga xiixal. ñoo fi tasewaat añ kon duñu ay noon Kara dem si biir ñoo nekkoo ba deux heures du matin. Ahmed Diallo la Diop Dégane قال لي كتير جمهور اهو احمد هو يمني كره كره عمر علي مخول خلي دارك لاني تا تا باكين اما يبلي بلي ديك علي سكرك لي ديك Para-para, direct lay banyak deg. Alit-alit lay. Alit-alit lay deg paramaran mirek lenideg kita papa Alicia kirek laideg tatapakin paramaran mirek